ma ngay wax fay naan wacc xal xuruufi bihi ridaaka yaa man radi taxnu is ardaka na nga def sama xarifi xasit yi mu nekk sa ngërëm yow suñu borom ak fi mu waxee naan wacc xal makaati bi la day ka xusna yaa man jaxalte ni xadiman afna suñu borom ñaan naa la nga def sama mbind mi mu bokk ci jaamu yàlla yi gën a rafet fa yow yow mi nga xamee ne yaa ma def ma nekk kii liggéeyal yent bi saasama te gën a màgg ca ña koy liggéeyal ba tey mu wax feneen ni waccal madaihi wa salawaati fawqal xibaadaati maxan wa daxawaat na nga def sama tagg yi may tagg yent bi saasama ak julli yi may julli ci yent bi saasama mu kawe mbooleem jaamu yàlla yi ak mbooleem ñaan yi fii alxibaadaat daf ko def alif ak laam nga xam ne li mu ci junj rek mooy mbooleem jaamu yàlla yi nga xam ne yëpp ak mbooleem ñaan yëpp nga xam ne amul distinction mbooleem mboole seen ñoom ñëpp na nga def sama tagg yi ak sama julli yi ñu kawe loolu kon ba tey loolu xasida gi dugg na ci waaye mu wax feneen tamit ne waccal xuruuf ya tihi junna xanil ida wa jannatan lil janna na nga def sama xarifi xasida yi mu nekk pàkk wëlif noonu yi te alxida gi li mu jublu mooy bànneex bakkan seytaane ak dunia mu nekk pàkk ci ñoom waaye nekk tamit ajjanay tey ba ajjanay ëllëg waaye mu wax feneen tamit ne waccal xuruuf ya bi afdalil basar fii abadin lahu rida ahla bu sar yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga def xarifi xasida gi ci barkeb yonent bi nga xamee ne mooy gën gi mbindeef nga def xasi xasida gi mu nekk ngërëm lu màgg ak it nekk gën ngaa kawe mbégte ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bokk na ci doolay xasida gi mooy luy bëgg loo yonent bi la waaye luy gërëm loo yonent bi la ba tey bokk na ci njariñal xasida gi ak doolay xasida gi di sëñ bi wax ci biir ne salli salaatan laa tasaalu saatiyan anwaaruha kulla xijaabin xaatiyan maha salaamin nuuruhu yu taxaru yu taxiru xalbal musalli ubihi um xeru suñu borom maa ngi lay ñaan nga julli ci yent bi saa sama julli koo xam ne ak leeram du dañ di dog bépp kiraay waaye ak sërmal koo xam ne dafay leeral xolub koo xam ni mi ngi julli ci ci yent bi te di ko julli ci xasida gi ba tey kon gis nga xasida gi dafay leeral dafay laabal xolub koo xam ni yaa ngi koy jàng waaye bokk na ci ngëneelu xasida gi tamit moom dafa bokk ci leeri suñu borom yi comme ni mu ko waxee wàccal xurufi haadihi anwaara yaa man li xëy na wajaxal boora na nga def sama arifi xasida yi ñu nekk ay leer waaye bokk na ci ngëneelu xasida gi mooy xasida gi dafay jàpp ci loxoy nit mën naa jàpp ci loxoy nit ba àggale ko ci àjjana waccaal kitaabati lil jinaani muusiratan mu niira janaani mu niiratan janaani na nga def sama mbind mi sama téere bi muy àggale ci àjjana waaye ba tey it mu wax leen ne waccaal yaa maliki axraad yi sifal uyub wa sifal amraadi safal xuyub wa safal amraadi na nga def jëmmi xasida gi muy setal bépp ay waaye di saafara bépp rag-rag waaye ba tey mu wax fee ne wàccaxal kitaabatiya fawxan nafli faatiatan lil xayri ku la xafle na nga def sama téere bi mu kawe mboolem naafile yi waaye tey ubbi tamit mboolem bunt yi bi tey ubbi lépp luy tëj kon loolu ba tey bokk na ci doolay xasida gi ak ngëneelu xasida gi te muy nuuru daari waaye bokk na ci ngëneelu xasida gi tamit mooy xasida gi dafay joxe xéewal tey day joxe xéewal yi gën a màgg comme ni ñu ko waxoon ne at ma nga xamee ne sëñ bi def na ko xéewal yi dafa bari ci njaareem ba ñëpp xam ne xasida gi moo ko waral sëñ bi ñaan na ci biir xasida gi ne suñu borom wax ne wàccal xuruufa saa ihi nisaam jaalibatan ilal munaxisam suñu borom maa ngi la ñaan nga def xarifi xasida gi muy bijji jëmee ci xéewal yi gën a màgg xéewal yi gën a kawe kon képp koo xam ne bëgg nga xéewal te am ci xéewal yi gën a màgg na nga taqoog xasida gi muy nuur daarin tey wax na ci biir ne wàccal jamiha ajalla barakaat wa sakanaati ihdiya masakaat na nga def xarifi xasida gi mboolem seen ñu bokk ci barke yi gën a màgg ba tey bokk na ci doolay xasida gi muy mi ngi bokk ci li suñu borom gën a bëgg ak li yonent bi gën a bëgg comme ni mu ko waxee waccaal midaad yi wa xilaami ahab ilayka min xayrin kasir yaa muhab na nga def sama xalima ak sama daa ñu gën ñu doon loo xam ne mu doon mu bokk ci yiw yi nga gën a bëgg yow suñu borom ak yiw yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a bëgg waaye ba tey bokk na ci ngëneelu xasida gi ak dara yi xasida moom xasida dafa nekk njëriñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko waxee waccaal kitaabati manaafi annabi kama bihi liya tasoona tunu bi waaye ba tamit mi ngi ñaan ci biir xasida gi loo xam ne dafay wane ne dafay wane doolay xasida gi ak màggaayu xasida gi muy xasida gi sunu borom def ko mu mel ne jëfi mboolem yonent yi sall yonent yi nga xam ne alayhim salaatu wasalaam ñoom la sunu borom yónni wala yi ab kaw nii ka kulli mursal waccaal xuruuf yi ka fi xaafir sunu borom ñaan naa la nga def ma mel ne bépp mursal waaye sama arif yi na nga ko def mu mel ne jëfi yonent yi kon loolu it bokk na ci ngëneelu xasida gi ba tey mi ngi wax fay naan wàccal bihi ahla ridan ahraadi yaa jaaxil enzami fi ahraadi suñu borom maa ngi la ñaan nga jël ismu daal sam def ko ci biir xasida gi ba tey ma ngi wax fay naan wàccal bihi xatte yaa sakuru yaa man lahu minin taxa sukuru sukuran wa hadiyan wa wilaayat rida yaa man waxaaneel xida amada maa ngi ñaan suñu borom nga def xasida gi mu bokk ci ngërëmal suñu borom ak sant suñu borom gi gën a màgg nga xam ne gëneel yu bari bari mi ngi ci ba tey bokk na ci doolay xasida gi nee na xasida gi suñu borom ñaan na suñu borom mu def ko mu bokk ci ngërëmam la gën a màgg mbërë ngërëmam la gën a kawe waccal makaati bi la dayka yaa jamilu ahala ridaaka fa anka fa anka laa tamit suñu borom ñan naa la nga def sama bind yi bokk ci sa ngërëm la gën a màgg wax na ti fenn ni wajhal midaadi fawqa kulli ma barakatan ka matari sama suñu borom ñan naa la nga def sama daaj yi mu kawe bépp ndox am barke ba mel ne ndoxu asamaan lamp FM ba tey it sëñ baa ngi wax ci biir naan wamhu bihi xasal laxaa li xatti yaaman maha maha i bi bil xatti suñ borom maa ngi lay ñaan sama xasida gi nga effacé ci jublu neen maanaam lépp luy neen rek bañ ko jublu yow mi nga xam ne yaa far samay ayib sippi ko kon looy war nañ caa déggee ne képp koo xam ne yaa ngi yor xasida Sëñ Tuubaa yi war ngaa sori caaxaan war ngaa sori neen comme ni mu ko ñaani fii nga xam ne kon da ci déggee ne xasida yi waruñoo foo jëm ca waruñoo caaxaan jëm ca buñ koy jàngit waruñu caa dugal loo xam lépp loo xam dafa nuru caaxaan ak mbërënt ndax sëñ bi ñaan na ci sun ñaan na ci biir suñ borom musal musal xasi musal mbindam ci lépp loo xam ne caaxaan la ak neen la comme ni mu ko waxee fenn ma xawta ay yàq si da xati laxaa yaa mën wi daal di dina bi ba laxaa suñ borom effacé nga lépp loo xam ne dafay nuru ay neen jublu sama mbind kon loolu ñun ñi nga xam ne ñooy jàng xasida yi di yor xasida yi war nañoo bàyyi xel ci lool nga xam ne war si xoox jëm ci du ci mbind du ci jàng te it lépp bari na loo xam ne nuru na ak neen mooy wax waxi Sëñ Tuubaa di ci dugal jeneen wax wala nga di ci yokk wala nga di ci wàññi te bari na ci jamono yi te loolu lépp bokkul ci nga xam ne lu war la waaye ba tey bokk na ci doolay xasida yi ak ngënee la xasida yi mooy moom xasida yi dafa bokk ci ngërëmal suñu borom li gën a màgg waccaxal bi xii xatti ya rabbi xindaka ak bari rit waa leen wa xinda cindaka suñu borom na nga def sama mbind mu nekk sa ngërëm li gën a màgg ak ngërëm li gën a màgg sa arma bi ba tey bokk na ci ngëneelu xasir bi mooy xasir yi dafay wommat jëme ci jub ak ci njëkk wa min ye iqbal maliki xurufi xailisin lil bir il maxrufi tey xasir goo xam ne suñu borom nangu na ko waaye bokk na ci ngëneelu xasir yi tamit ba tey muy suñu borom da koy def ay ay fay yoo xam ne dafay des ba faw fay goo xam ne du dog ba ajana waccaxal xurufiya ujoran baax ya bilantiha lil jinaani raq ya ba tey bokk na ci dooray xasida gi ak ngëneelu xasida gi muy xasida gi mi ngi bokk ci jaami yàlla yi nga xamee ne moom la suñ borom gën a bëgg jaamu yàlla yi gën a yi gën ci la bokk waccaxal bi si sa ini saam xayra xibadatin yataxulul xayra suñ borom ñaan naa la nga def xasida gi sans way yi mu nekk gën gi jaamu yàlla nga xam daf may wamatal aw yu ba tey bokk na ci ci doolay xasida gi ak ngëneel xasida gi di sëñ bi wax ci biir ne wàccaal kitaabatiya ka mislil xajji wa sawmi wa salaati alil aji sun borom ñan naa la nga def sama mbind mi sama xasida gi mu mel ne aj ak woor ak julli bu njëkk ba am na fu waxoon wàccaal kitaabatiya min sal yow mi fawqa salaatin xawil wa sawmi na nga def sama mbind mi bis ne ko tey mu kawe julli ak koor guñ nangu gis nga foofu salaat ak sama da ko defoon mu jarra nakira la ko defoon nga xam ne amut ak alif ak laam loolu la mu ci doon jublu mooy bépp koor goo xam ne bépp koor goo xam ne du koor farata ak bépp jul goo xam ne julli julli farata nga xam ne naafila la na nga def téere bi mu kawe ko fii nag mu indi saw mi ak ajj ak salaat def ko mu am alif ak laam nga xam ne kon da cee jublu moom itam julli farata ak koor farata ak aj goo xam ne aju farata la moo tax kon mu ne suñu borom na nga def sama téere bi mu mel ne aj ak woor ak julli ci tiyaaba kon bàkkoon na ci ngëneel xasida gi mooy ñetti yooyu yëpp daje na ci biir waaye ba tamit bokkoon na ci ngëneel xasida gi ak doolay xasida yi ni ko sëñ bi waxee ci biir waccal bi jaahil azimi nasmi yaaman xamaani xan dawaahil kasbi xindaka imaanan wa islaaman maha ahsani ihsaanin wa lil munaa ijmaha suñ borom ñaan naa la ci barke bi yonent bi nga xamee ne dara jaam lu màgg la fa yow nga def sama way wii yow yàlla mi nga xamee ne yaa may aar ci lépp luy waral mer mu nekk taxaw taxawaayu imaan gu mat sëkk muy gëm yàlla waaye taxaw taxawaayu lislaam gu mat sëkk muy lislaam waaye taxaw tamit taxawaayu tasawuf gu mat sëkk kon ba tey gis nga kon ngëneelu xasida gi ak doori xasida gi fa mu toll